waaw ba tey rek euh, mbokk yi nga xam ne ñooy suivre euh, IYAT TV dañuy ñëwaat ak yéen ba tey ci li nga xam ne moom moo nekk di xew ci tribunal bi euh, ñu leen ciy jox ay info yu sûr yoo xam ne yu leer la donc ki nga xam ne moom mooy maître El Hadj moom taxaw na à la barre aussi tamit doon plaider ki nga xam ne moom mooy avocat waaye ci biir wax ji tamit dégg nañ ko mu ne ñoom amuñu vidéo amuñu. Euh, li nga xam ne moom mooy ojo contre Ousmane Sonko donc euh, loolu di loo xam ne lu doy doy waar la euh, beneen bi tamit ki nga xam ne moom mooy Me Ciré Clédor li moom li nga xam ne wax na ko moom mooy kii di Ousmane Sonko moom mii di Me Ciré Clédor li waajoon na ngir dem foofu foofale ca Ziguinchor ngir jëli kooku nga xam ne moom mooy client am indi ko. Euh, bay wax ne sax am na li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy euh, billet d'avion ngir 13 heures mënoon jëli ji Ousmane Sonko ngir mu ñëw comparaître waaye nag daanaka demande de bi nga xam ne doon na ko sàkku ngir teewaayu Ousmane Sonko mën a am dañ ko ko bañal juge bi moom li mu décidé mooy li nga xam ne mooy àtte mbir mi benn yoon. Euh, loolu daal mooy li nga xam ne moom mooy li fi jot a xew euh, am nañ euh, suspension de quinze minutes séance bi suspendre lañ ko jusqu'à quinze minutes donc ñu leen di nekk di ko topp bob ba léegi nag fii ci IYAT